tey jii Afrique dañoo am lu bees lu bees mooy lan benn site internet su ma nee site internet da ngeen ne déet site moom beesu fi yàgg na fi am mais particularité bi mooy site bi dafa nekk benn jumtu benn jumtukaay boo xamante ni dafay jàppale ñëpp ñoo xamante ni dañuy yëngu si wàllum cosaan ak aada. léeg-léeg mën nga nekk fii sa dëkk nga nekk di defar ay mbir yoo xamante ni war na mën a jar lool mais soo ko génnee waaye pour génn il nga paas. pour génn il faut nga am moyen pour génn il faut nga am site internet donc day day day difficile day métti pour suñu artisan boo xamante ne mu ngi fee village ba wala mu ngi fële euh, di kar euh, touristes yi pour mën a jaay ay jumtukaam day métti mu génn dem wane ko ci biti looloo tax ñu andi jumtukaay bi ngir ku si inscrire rek yow di nga mën a fu nga nekk nii Sénégal fii nga posté li ngay def lu yomb la sa numéro de téléphone ngay dugal wala sa compte Facebook amul dara dara dara loo xam ne dañ la koy laaj si wàllum xaalis lu ñu bëgg rek mooy que cosaan que ñun ñii su ñun ñi lu nekk di liggéey ñun Afrique ñu mën a ñun suñu biir ba pare ñu mën di koy jëfandikoo. donc soo ko posté di nga mën a jokkoog benn malien di nga mën a jokkoog benn ivoirien di nga mën a jokkoog benn burkinabé boo xamante ne dina gis si liggéey ngeen jokkoo ngeen mën a di demalante. beneen mbir moom mooy tur bi ñu ngi ko tuddee Wumuja. ay produits yu bëri soit da nga koy tuddee turu anglais wala turu euh, français ñun da ko tuddee turu africain lu tax ñu choisir Swahili parce que Swahili mooy lang boo xamante ni après pël bokk na si langue boo xamante ni si làkk boo xamante ni si kalaama bu ñuy gën a làkk fii si Afrique donc looloo tax ngi choisir tur boobu Wumoja Wumoja mooy lan mooy suñu biir Wumoja mooy suñu biir Wumoga mooy man ak yow. donc ñun suñu biir africain suñuy jokkalante suñuy produit ñii mën di jokkalante jokkalante mooy naka yow tey gi soo xasee ba inscrire sa mbokk malien bi da koy yónnee message yónnee ko email naka ah sénégalais kat bu nekk Dakar fële dugal na fa benn dàll bu bees dugal na benn mbaxane bu bees ah dugal na benn kooraa bu bees kooku instantanément dina ko mën a gis mën a xam li ngay liggéey donc loolu benn innovation boo xamante ne ñun fii Afrique dañ ko soxla woon dañ ko soxla woon lool lool lool lool lool parce que jokkalante bi suñu biir loolu rek moom moo mën a tax que suñu économie ñun ñu mën ko sukkali